ubbil ko li nga xam ne moom moo nekk bunt bi ubbil nañ ko moom président Macky Sall sol benn kasket sol li yëre bu xaw a sombre moom président ñëw nag di nuyu ñi nga xam ne Ablaye Seydou Sow moo ko dalal mu ngi nuyu ki nga xam ne moom moo nekk Néné Fatoumata Tall euh, le gouverneur de Dakar lay nuyu nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw fi nga xam ne moom moo nekk tey ci bërëb bi di rond point bi bésu secrétaire bi jiitu moom moo ko initié yi bés boo xam ne nag dañ koy relance relance la waat maanaam relance maanaam tàmbaliwaat li nga xam ne moom moo fi amoon daan nañ ko dem def mais njiitu réew mi danee nañ ko tàmbaliwaat ñu koy tàmbali tey jii nag di samedi 4 décembre fii nga xam ne moom moo nekk rond point cité kër góor gi mu ñu nag day continuer di wëyal daal di dem fële nga xam ne moom moo dugg ci benn folklore maanaam duggul euh, nit ñi am ci benn folklore nañ ko def nit ñi maanaam lépp nag dañ ko def ci am sobriété maanaam lépp nañ ko def ñu bañ a am benn fuume lépp nañ ko def ñu am benn jafe-jafe waaye nag nañ ko liggéey askan wi yëpp daal di ñëw ànd ñoom ci li nu mel kon nag muy noonu am na ko xam ne day na ko daal wax mu jëm ci réew mi le euh, président Macky Sall moom mu nekk noonu te noo ko nit ñi nag président maa lay nuyu baax. ci relance bi ñu joxante noonu loxo maanaam bésub setal bu am solo boo xam ne président moo ko jëkkati waat te yaakaar naa bés bi am na solo moom jiitu réew mi président Macky Sall mu ngi suñu kanam nga taxaw nuyoo naag nit ñi di delluwaat ñu dina ci bi ànd ak protocole wër point yi nga xam ne nag moom mooy point yu mag yi nga xam ne moom la wax ngi tey nii fa lay jëm nag fa muy mujjee nag moo nekk ci élèves yi day dem ca ndongo te nag xam nga ne xale moom muy ëllëg dina wax ak gone yi ñaax leen xaaleen bu baax a baax ne leen nag li nu mel set moo am solo kon njiitu réew mi président de la république loolu lay def nag bu baax a baax kon yaakaar mu ngi président de la république nee na tey sobriété la bëgg maanaam ci calme gis na Ousmane Iyane moom ñëw wax ak njiitu réew mi nekk dañoo mobiliser mais président dafa mel ni tey bëggul mobilisation lépp rek da def ci jàmm ci calme ak ci lu nu kon nag euh, njiitu réew mi président de république mu ngi noonu waa UCG ñoo koy tàccu moom njiitu réew mi kon xam naa dañuy départ njiitu réew mi day duggaat ci oto daa di dem fi nga xam ne nag moom moo nekk Euh, ci beneen deuxième point bi nga xam ne fa la fas yéenee amal li nga xam ne moom moo nekk visite bi euh, mu ngi noonu madame la maire mooy jàll son vague bi kon président de la république bi ñu xaar am na koo xam ne wax na ak moom déyante na ak président mais président boole na ak protocole bi jël ko bu baax a baax xam naa moom njiitu réew mi président de la république euh, xëy na loolu leneen la boole na ak ki nga xam ne moo nekk gouverneur bu palais bi je crois tey itinéraire bi dina nekk lu am solo commandant Ndiaye mu ngi noonu moom euh, moo faral ànd ak waa gendarmerie di def nag liggéey bu am solo boo xam ne ñu koy def ñu ngi koy def am solo mu ngi noonu euh, euh, ñun trois lañu waa TFM ci li nga xam ne moom la ñuy def kon nañu xaarandi ngir mën a yéeg ci li nga xam moom moo nekk cortège bi ànd ak jiitu réew nekk loo xam solo la république moom Macky euh, ànd moom ci li nga xam ne moom fii nga moom moo nekk ci biir Ndakaaru nga waral na nag def euh, su ñu seetaan euh, ñu seetaan euh, président de la république Macky Sall moom mooy ñëw noonu di président di amal nag cleaning day cleaning day yaakaar naa bésub setal lañ ko wax moom lay relancer noonu ñu jël nag yoon bi kon dañuy dem deuxième point am na deuxième point bu am solo boo xam ne fa la ñu fa seen jëm fekk fa tamit moom mu ñëw fa fekk fa dispositif bi ñu fa def waa UCG ak euh, ay nit la ñoo xam ne ñu nga jël kon nag euh, ñu ngi doon di jubal yéen a ngi seetaan télévision future Média mu def ko en direct cortège bu président Macky Sall moom la ñu dugg noonu ànd ak ko defee ci dee ci bés bi ah, fañ koy jeexalee nag moo nekk ci ndongo yi xale yi dem ci CM yi dem ci collège yi dem ci université yi dem ci daara yi ngir fexe nag ñooñu ñu xam ah, bés bi lan moo ko waral ah, ñaax leen ba gone yi suñu màggee ëllëg mun a xam lan mooy set ak setal kon nag cortège bi la ñu topp noonu njiitu réew mi président Macky Sall kon ci deuxième euh, rond point bi waa UCG yi ñoom la ñu mobiliser noonu ñu taxaw yoon bi yëpp di ci liggéey ak seen directeur euh, bi nga xam ne moom moo nekk Mass Thiam waaye quelques militants ñoom taxaw nañ ci yoon bi taxaw nañ ci yoon bi ngir euh, mën a jël li nga xam ne moom moo nekk ñëw président de la république Macky Sall xam ne dina wàcc ngir mën a sante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, ay nitam yi nga xam ne ñoom tey ñu ngi fi kon euh, cortège bi day avancé ndànk-ndànk cortège présidentiel bi mu ngi noonu quelques militants nag ñoom ñoo génn fii ci watu rond point bi ngir euh, saafonteeg njiitu réew mi moom le président Macky Sall ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy militant je crois que président moom am na fu mu taxaw ngir dafa xool dispositif bi nga xam ne moom moo fa nekk ah, loolu tamit euh, dispositif bu mu nga fële xaw nañoo sori tuuti mais dinañ ci ñëwaat bu baax a baax ci boobule dispositif président Macky Sall moom moo nekk noonu taxaw na euh, fële nag di waxtaan nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk li nu mel militants yi nag daw nañu wër ki nga xam ne moom moo nekk président Macky Sall fa la nga xam ne fa la taxaw euh, quelque militants ñoom ñoo fa nekkoon mais wàcc na di saafonte ñoom tey président de la république boo xam ne la gis dafa ñëw ak euh, maanaam tey escorte bi méttiwul loolu euh, protocole bi méttiwul loolu mais ñu ngi noonu nag di waxtaan mu ngi dox moom président mu ngi dox fekk si quelque militants yi nga xam ne jot nañoo génn ngir euh, nag mën a saafonte ak moom ak seen i banderole ak li nga xam ne moom moo nekk seen i drapelé euh, je crois que yéen a ngi noonu di ko gis ci image yi ci télévision Futurs Médias dégg nga ñu ngi naan ko prési prési moom euh, président Macky Sall nag lii du ci mënu cee ñàkk ñu ngi ci noonu nag daal di koy wër foofu nga xam ne moom moo nekk militant yi noonu gis nga leen ak euh, banderole yi nga xam ne moom lañ yore ñu ngi waaj a yegg ci deuxième kii bi nga xam ne nag moom moo nekk rond point bi foofu moo nekk deuxième passage bi kon xam naa du yàgg tuuti il faut mu saafoonteeg ñoom ay militant waxtaan ak ñoom nag du ñàkk ñenn ñoo xam ne dañuy ñëw nag di ko déy seeni soxla am na ci koo xam ne ñëw na taxaw wax ak président président woo ñu ci ginnaaw boole ak ñoom yóbbu ko ba ci otoom xëy na am na loo xam ne nag. day na ko euh, mu daal di ci jàpp moom mi nga xam ne moom mooy njiitu réew mi tey moom yaakaar naa ne euh, sécurité bi méttiwul ndax président dafa ñëw dugg ci biir nit ñi ci biir ful bi la nekk ak ñoom euh, daal di toog moom président Macky Sall yi sol seen i t-shirt yu APR yu Benno Bokk Yaakaar yor yi nga xam ne moom moo nekk ay pancarte daal di ñëw na taxaw président nag mu ngi fiy bëgg a defub diir waaye xam naa bu waxtaan ak ñoom waxtaan ak militant yi dina génn euh, dina dugaat ci otoom daal di continuer ci li nga xam ne moom mooy trajet bi kon image yi ñu ngi noonu ñu ngeen xool ko tey moom xam naa sécurité bi dinañ am liggéey bu am solo lana président dafa ñëw dugg ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk askan wi dafa ñëw dugg ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay nitam. Euh, kon Demba mu ngi noonu euh, di jege ji ëmpa pour xool njiitu réew mi naka la taxawee ak tamit ak nit ñi ak tamit li nga xam ne moom la ñuy saafonteeg moom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy li di militant kon ñu jéem a xool jege xool luñ fay mën a taataan. ak njiitu réew mi lan lay wax ak ñoom ñoom président de la république daa mel ni mu ngi dellu waat mu ngi delluwaat ci otoom moom njiitu réew mi daa mel ni mu ngay delluwaat ci otoom waaw mu ngay delluwaat moom njiitu réew mi président Macky Sall mu ngi delluwaat bu baax ci fi nga xam ne moom mu nekk ci otoom kon nag ñu euh, ñu ngi delluwaat ci sunu oto ngir mën a dem njiitu réew mi ànd ci cortège bi noonu ba léegi rek ak ki nga xam ne moom moo nekk njiitu réew mi président Macky Sall waa mu ngi dox daanaka dugaat na ci otoom ndànk oto yi ñu ngi ralentir noonu garde yi ñu ngi noonu ku ne delluwaat fi nga xam ne moom moo nekk sa place bu ko defee ñu daal di wëyal euh, li nga xam ne moo nekk visite bi président di am ni ki tey nii le président de la république Macky Sall euh, dégg ngeen li nga xam ne noonu lañ ko tegoo foofu ci rond bi au niveau du rond de l'UCG rond-point bi tamit ñu ngi fii euh, gis nañ ki nga xam ne moom moo nekk le DG Aline Badara lii mu ngi noonu taxaw ak ay équipe am ñoom ñooy aménager yor li nga xam ne lépp loo xam ne moo nekk ci mbir yi moom tamit dina janook njiitu réew président de la République euh, Macky Sall ñu fas yéene euh, waxtaan ndax fii ñoom it ñoom ñooy defar rond yi ñoom ñooy defar yu bëri fii nag ci réew mi moom mi nga xam ne moom mii di Aline Badara lii mu ngi noonu wàllu cadre de vie yi ñoom ñoo ko yore mille emplois yooyu ngeen di wax ci bërëb boobu lañ ko yóbbu bërëb boobu noonu ngeen gis noonu di bërëb bu am solo kon euh, njiitu réew mi président Macky Sall euh, dina wàcc léegi euh, fekk si leen ñoom tamit xool tamit naka la ñuy liggéeyee kon président la ñuy xaar. président Macky Sall mu ngi wax fu mu romb nag doléance yi gars yi dinañ doléance <laughs> président mu ngi noonu di wàcc sol yére olof wàcc na moom président de la république dafa war a wàcc wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci rond point bi ndax nag noonu lañ ko trase mais moom saabu bu dina saafonte wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ay nitam mook Abdoulaye Seydou Sow nag ñoo bokk oto moom mi nga xam ne moom moo nekk ministre bu yor wàllu urbanisme président mu ngi noonu président Macky mu ngi sol casquette bu weex euh, sànq bu bula la soloon mais mu ngi noonu di ñëw di saafonte di nuyoog ak ñoom ñu fekk ci rond point bi ñooñ lay saafontel di nuyoog ñoom moom président Macky Sall mu ngi noonu kon nag. Euh, nañ ko bàyyi noo moom président Macky Sall mu ngi waxtaan ak ñi nga xam ne ci clinique day bi Aline Badara Ly euh, moom euh, waa Koungheul la euh, bi ñu demee esprit de mon quartier ñoom lañ fa fekk Koungheul ak ñoom jigo ñoom ñoo yor lépp yor environnement ak cadre de vie mu ngi noonu di wax ak njiitu réew président de la république xam naa nag am na ay yoo xam ne moom la koy expliquer moom la koy wax gars yi nag ñu ngi wax. ab président mu ngi noonu di dem ci ron point bi lan lañ fiy liggéey gis ngeen ay jardinage moo fi am maanaam ñu def ay fleur te ci loolu tamit euh, gis nañ ñoo xam ne dañ koy arrosé tout le temps kon Alioune Badara lii moom mooy ànd ak président di ko woon noonu moom moo yore li nga xam ne moo nekk lépp jëm ci wàllu wow kon euh, ñu dem jege ji ne le kon président Sall moom moo nekk noonu gaa yi nga wax ak moom. ñu ngi wax ak président de la république président lañuy ñuy waxal waaye moom président dafa mel ni bain de foule bi président dafa ñëw tey dugg ci askan wi yéen a ngi dégg tey moom dafa dugg ci biir askan wi le maire le ministre Zator mu ngi noonu day dem jege ji kii di président de la république kon euh, loolu mbir la bu am solo président dañuy jëm fi nga xam ne moom la ñuy pompé ñu jegente ak ju Aline lii moom mooy wax ak président de la république Macky Sall noonu moom mooy wax la le président moom alin Badara li di ko explike lépp li nga xam ne moom moo nekk ci li ñuy liggéey ak li nga xam ne moom lañuy def moom mi nga xam ne moom moo jiitee mbir yi nga xam ne moom la ñuy liggéey kon dispositif boobu nga xam ne moom la def moom lay wax président de la république moom Aline Badara Ly euh, mu dégg nag ministre am Abdoulaye Seydou Sow euh, ñu ngi noonu kon temps fort yëpp yéen a ngi koy gis muy visite chef de l' état le président Macky Sall li nga xam ne moom la def tey ci cleaning day bi nga xam ne moom la def maanaam bésub setal bi mu tàmbaliwaat euh, moom jiitu réew mi président de la république nag. mbokk yi image yi mu ngi noonu yéen seetaan télévision Futur Média yéen a ngi am live en direct président de la république fii ci rond point bi nag muy xool dispositif bi nga xam ne ñu ci def pompage bi fleur yi ñu fi saxal ak yeneen yëpp yi nga xam ne ñu ci def kon mu ngi noonu moom ak DG bi ñu ngi nekk bu baax a baax moom njiitu réew mi le président de la république ci bésu seetal bi nga xam ne moom tey tàmbali na ko. moom nag jege askan wi président dafa jege bu baax a baax askan wi di ci liggéey di ci nekk lu ci am solo président de la république euh, Macky Sall ak euh, Aline Badara li ñoom ñaar ñu ngi noonu mu koy expliquer li nga xam ne moom moo nekk dispositif bi ñu fi teg euh, l'honorable député sator mbay mu ngi noonu sator Mbaye mu noonu moom tamit ñëw na ngir jege président de la république waaye ngir nga jege ko nag di nga wax lu set ndax garde yi ñoom taxaw nañu image yi mu ngi noonu yéen a koy gis ci télévision Futur Média njiitu réew moo génn këram sànq dem ronpoint point ñëw ci rond bi nekk fii côté immeuble Mariama ngir mën a wéyal tamit daal di dem kon ñu ngi delluwaat ci li nga xam ne moom moo nekk ci oto yi ngir mën a demaat ndax nag cortège u président de la république dafa yombul euh, kon nag dañu wéy ba léegi ànd ak yéen waa UCG yi ñoom ñoo nekk noonu président mu ngi delluwaat ci otoom mais militants yi coûte que coûte ñoom danoo bëgg vraiment dem jege prési mais fii moom du yomb tey ndax yoon bi yëpp xam naa balaa ñoo yegg dina jël temps bu bëree bëri mais néanmoins njiitu réew mi moom mu ngi jël temps di ci militant yi nag ku ne koy bëgg a jege kaay duñu nangu loolu ñii di garde rapproché yi ñoom sécurité présidentielle bi ñoom mayewuñu dara ku ci ne bëgg a jege président wax ak moom mu ngi noon nag cortège bu ngi demaat cortège baa ngi demaat ñu jubali ci troisième point bi daal di jël li nga xam ne moo nekk VDN bi loolu la ñoo fas yéene def VDN bi daal di continuer dem fa nga xam ne moom moo nekk ci échangeur bu Cissés suñ fa jógee dem bu portage bi delloo ko dellu nawaat euh, rond lañ jëm Cissés échangeur bu Cissés lañ jëm cortège baa ngi noonu dugaat na ngir daw ngir dem ànd ak euh, président de la république euh, nit ñi ñu ngi ci kaw li nga xam ne moom moo nekk pont yi di xool di seetaan trajet bi ñenn ñi ñu ngi ci suuf kon gis ngeen image yi nit ñi ñu ngi ci kaw pont yeeg li nu mel di xool ñeneen ñi daal di taxaw ñeneen ñi ñu ngi daal di taxaw kon nag euh, ñu woyal ba léegi lii de circuit bi circuit bi la ñuy ah, di dem nag noonu ci VDN bi ànd ak président de la république le président Macky Sall nuyu leen waaye ñu ngay wéy di continuer da leen tàllal loxo rek lii di convoi bi mu ngi continuer tamit euh, di dem convoi bi mu ngi noonu di dem ñu ngi noonu passé nañ buntu Cissesse ñu ngi wàcc noonu ngir euh, dem fële nga xam ne moom moo nekk ci ascenseur bu Cissesse yaakaar naa ne euh, la ñu ni suñ fa jógee wàcc dem fële ca diggante Padois jóge fa doog ko dem ci école ba kon nag yéen a ngi noonu di gis trajet bu baax a baax ñu ngi noonu di wàcc ci suuf ànd ak ki nga xam ne moom moo nekk njiitu réew mi le président Macky Sall bésub setal bi nga xam ne moom lay initier jamono ji nag moom lay def ni kon président de la république la àndal ci cortège bi mu ngi noonu di wàcc fi nga xam ne moom moo nekk ci euh, jëm noonu Padois. waaye nag gis yoon bi yëpp ñu ngi toll côté Lonase nii euh, boobu yëpp gis nga lépp dañ koo dajji lépp lu fa nekk ci table yëpp jënd nañ ko ne nañ foofu nag dinañ am ay mbir yoo xam ne dinañ ko fa def ngir nag mën a fexe askan wi tamit am benn cadre de vie waaye mooy ñeneen di leen jàppale kon ñu wëyal ànd ak yéen ci cortège président de la République seen kër yi tamit dinañ leen wax nan la mën a nekkee ci la taamu leçon de vie la bëgg bu ko defee ñu mun koo yaatal ci yeneen i gox kon yéen a ngi euh, direct télévision Futurs Médias mu ànd ci cortège président Macky Sall ba see nee nag ba suñu bi clinique day la ko tuddee muy def relance gannaaw weer yi yëpp weeru mars la ñu ne def lii di bi évaluer xool li ñu liggéey suivi beeg li mu mel kon euh, ànd leen ci cortège njiitu réew mi Patte d'Oie woto Nabil Choucair noonu ah, côté Nabil Choucair nag après dañuy tourné côté Mariama Niass dem fële nga xam ne moom moo nekk ci moo tax kon gis ngeen yoon bi ah, xam ne nag taxaw nañ xaar ni que tey samedi bi ah, gaar yi fees gannaaw bi nga xam ne nag transporteurs yi grève nañ ba pare tey ñu reprendre waat kon cortège bi la ñu ànd nii topp ci ak euh, président de la république Macky Sall mais gis ngeen yoon bi yëpp lépp lu fi panneau lépp lu fi cantine dindi nañ ko ci cleaning day bi moom moo tax te ne nañ fépp fuñ nag dinañ fexe ba am luñ fa def ngir nag euh, nit ñi bañ ko occupé kon ñu ngi noonu di tournée ji ngir mun a dem la nga xam ne moom moo nekk ci Limodak fexe nag euh, ànd ak euh, ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yooyu leen ndongo ñoom tamit président def fa discours am def fa point de presse am président mën a wax ak ñoom président daal leen ñaax kon euh, ñu ngi nii ci pont bi di tourner bu ñu tourner ba yegg foofu nag jiitu réew mi dina fa saafoon teg ndongo yi ndax nee na nag moom ci ndongo yi la koy njëkkee dina dem ci école yu ndaw yi jugee ci école yu ndaw yi dinañ dem ci euh, école yu diggu dóoma yi école yu diggu dóoma yi buñ ci jugee ñu dem nag ci université yi nee nañ daara yi tamit leen bàyyi ndax na lépp set bu lépp setee rek weer wu ne nit ñi di laxas di defar ni set bu gis dara bu ko sànni ci mbalit na nga jël daal di koy téye ko xool mbalit daal di ko fay def mais sànni ko ci mbedd bi loolu du nekk lu baax kon cortège baa ngoogu léegi ñu yegg si ndax ñu toll ci jumaa ji jumaa ji yegg ci Nabil Choucair ndax tourné nañu léegi dikkaat nañu di ñëw ci pont bi nga xam ne moom moo nekk pont Sénégal 92 di jëm fële nga xam ne moom la ñuy wax Limodak lycée Sergent Malamine Camara ñu génn nañu pont bi daanaka ci lu kon foofu la ñuy jubali directement mi noonu la président de la république ki sàll gaa ngi yuuxu di ko teeru di yuuxu di ko teeru ñu ngi yuuxu di ko teeru fi nag matériel bu bëree bëree bëri mu ngi fi matériel bu bëree bëri mu ngi fi ci wàllu peel brouette ak lépp indi nañ ko fi yaakaar naa tey fii la ñuy lancé lii di cleaning day bi mu nekk relance relance des activités de cleaning day bésu setal une démarche une démarche du moins qui se tout d'abord dans les collèges tout d'abord dans les daara dans les universités dans les CM dans les écoles pour vraiment éduquer les enfants avant donc de sortir dans les régions dans les capitales régionales le président de la République accompagné du ministre de l'urbanisme monsieur Abdoulaye Seydou et donc de tout le personnel du cadre de vie euh, pour relancer donc l'activité Cleaning Day Bessup Setal ici au lycée Sergent Malamine Camara, passe au stade Léopold Sédar Senghor, pour pouvoir parler avec les élèves, leur délivrer un message, un message important, une leçon de vie. Le président de la République est accueilli par les populations, par euh, donc les membres de l'UCG, les agents de l'UCG, entre autres, le personnel éducatif, les élèves, tout ça. donc aujourd'hui le président est là ñu ngi noonu nag di wàcc njiitu réew mi wàcc na moom président Macky Sall moom la ñuy àndal nag dem fi nga xam ne moom président mu ngi noonu Macky Sall ànd ak euh, ñi nga équipe am ànd ak le ministre moom président Macky Sall mu ngi nii sunu kanam président Macky Sall mu ngi nii sunu kanam. ànd ak le ministre Abdoulaye Seydou Sow ñoom tey ñoo ànd ñëw fii di lycée bii di Limodak ngir nag délivrer un message un message fort un message pour les enfants un message pour les élèves moom président de la république monsieur Macky Sall. kon nag euh, Macky président de la république mu ngi noonu tey ñëpp li ñuy xaar ban message lay wax li nga xam ne moom moo nekk ndongo yi yaakaar message boobu dina nekk message bu am solo dina nekk message boo xam ne ñëpp moom la ñuy xaar niki tey jii moom njiitu réew mu président de la république message bi nga xam ne moom lay délivrer la population message bi nga xam ne moom lay wax ak lii askan wi moom président Macky Sall kon ñëpp ay moom lañ dem xaar élèves yi ñu noonu élèves yaa ngi yuuxu. élèves yi kontaan nañu ñëwu président Macky Sall ñu jox leen ay drapeau waa école Limodak ay drapeau lañ leen jox ñu daal taxaw ngir teeru le président de la république waa ministère de la santé ñu ngi fi ñoom combaan ñëpp tey ñu ngi fi fii ci lycée sergent Malamine Camara lii nag ñu koy def en direct sur la télévision Futur Média ñëpp di xaar nag le message du chef de l'État monsieur Macky Sall moom tey ban message la fa seeni indi lu tax mu taamu école yi lu tax mu taamu fi nga xam ne moom moo nekk école bi lu tax mu taamu li nga xam ne moom moo nekk école bi nga xam ne nag moom moo nekk sergent ma Lamine Camara pour waxal li nga xam ne moom moo nekk élèves yi kon ci loolu nag nekk na lu am solo ndax nag tey loolu lay gaay di liggéey ak ki nga xam ne moom moo nekk njiitu réew mi le président Macky yaakaar naa tey fii fees na dell yaakaar naa tey élèves yi ñëpp ñëw nañu ngir nag janook njiitu réew mi président Macky Sall dafay dem nuyu ji xale yi dafay dem saafonteeg ñoom day dem jege ji gone yi saafonteeg ñoom nuyu leen moom président taxaw na taxaw na ndax noo ngay tey dañoo am gan gu mag yombul président di dugg ci école ñëw nag tey ngir fekke si lii nga xam ne moom moo xew fii ci école sergent Malamine Camara nuyu ndongo yi yaakaar naa ndongo yi am nañu mbégte ah, am ngeen mbëgte gis président école. am nañu mbégte trop sax dañoo kontaan kontaan ba xam lu ñuy def Macky Sall dafa nekk ñu président. kon président nga dégg nga national mu Sénégal noonu la élèves yi doon entraîné noonu di ko wax noonu jagleel ko ki nga xam ne moom moo nekk le président de la république le président Macky Sall yi ndongo jiitu réew mi moo ñëw tay seet si ndongo yi loolu lu raar la xaare ñu xool quelque ci ndongo yi laaj leen waaye yéen lan ngeen yëg dalal njiitu réew mi non non mosuñu ngeen bég pour dalal ko. mu ngi noonu président mu ngi noonu di ñëw. di ngeen gis njiiti réew mi élèves yi nee nañ dañoo bëgg a wax Demba. président lan ngeen kontaan. nañ kay on le mot de tout barki yàlla kontaan nañ trop moom. dañ ko fiy ñaanal mu gudd fan rek continuer liggéeyam ci barke. mu ngi noonu di ñëw élèves yi mbégte lañu am kontaante la ñu am ngir dalal njiiti réew mi fi nga xam ne moom moo nekk ci seen gox. kontaan ngeen dalal président. kon mu ngi noonu ndongo yi nee nañ am nañ mbégte dala dale daleel président kon président tey nag ndongo yi dañ koo recevoir en grande pompe li wax dañ koo recevoir en grande pompe moom njiitu réew mi xale yi dañuy teeg moom tey beneen président la ñu gis président bu jege nit ñi président bu jege Alassane waa Alassane tey njiitu réew mi dafa ñëw cleaning day yéen ci ministère environnement nga nekk yan kàddu ngay sànni. merci beaucoup lii moom sag la président de la république ñëw fii jàngal xale yi. naka la ñu war a yoree seen école naka la ñu war a investir ci seen école seet te taaru Fafara donc lii moo war bépp sénégalais ñu leen di woo ñu ñëw taxaw vraiment jàpp ci seetu école merci Fafara. merci beaucoup Alassane. kon njiitu réew mi le président Macky Sall mooy saafonteeg ndongo yi mu am mbégte di saafonteeg xale yi tàllal na leen loxo ministre de la jeunesse mu ngi noon nee ne taal Tall euh, gis nañ ci le maire Banda Diop Aline Badara ñaari kàddu président ñëw di saafonteeg askan wi ñëw tamit ngir dekkal clinique day bésub setal yow ci cadre de bi xam nañ la ci yan cadre nga ci sànni. waaw kàddu mbégte kàddu ñaax askan bi pour que ñu xam ne ca moom lu war la kon suñu demee ba président ci boppam jël bës institutionnalisé ko ñu war ko jagleel cet si geeg cetal gi donc defe naa ne loolu askan bi dañ ko war a téye bu baax di ko fexe ba désormais plus plus que jamais nañu fexe ba nga xam ne lii di cet dañ koy boole ci suñu dund ñu mën di defar fi nga xam ne mooy dëkkuwaay bi ngir nekkin gi mën a gën a neex et gën a yéwén. gis nañ ñu ko dem expliquer loo ko waaw wax ko ne ko ñun dañu yor li nga xam ne moom mooy paysage urbain espace public mu nekk gàncax geeg yooyu nga xam ne dañuy yittewoo saa su ne ndox ñu am ay jafe-jafe yu tar nag pour mun a wàccanteeg arrosage bi donc ba tax tey ñun ñu décidé woon créer benn système de tricycle aménagé ko ay moto ak ay fiwu mil litres pour mun di arroser saa su ne. pour mun a fexe ba gàncax gi di gën rafet gën a taaral gën a jëmmal suñu dëkk mu nangul ñu ko ne dinañu ci gunge gën ñu ci jàppale pour que vraiment ñu mun a nekkal gàncax gi nekkin goo xam ne dina gën a mucc ayib et gën a taaral suñu dëkk. merci beaucoup Alioune Badara Ly et bon courage di la jaajëfal bu baax ci liggéey bu am solo boobu dégg li mu wax ci gàncax bi ak liggéey bu am solo bi nga xam ne ñoom ñu koy def kon njiitu réew mi moom moo nekk noonu. ñëw fii ci école bi ngir lancer un message fort message bi lan la lan la war a wax xale yi yaakaar naa ne loolu lay ñëpp di xaar ndax xale mooy nekk magu ëllëg nga teel ko jàngal cet ca ba muy gone su màggee da koy yóbbaale kon président Macky Sall tey ndongo yi ñoom ñoo ko dalal fii ci école sergent Malamine Camara ñu xool li nga xam ne moom lay def foofu ci réew mi ndax jëmbat ak saxal garab nekk na loo xam ne lu am solo la moom président Macky Sall yaakaar naa ne tey fii moom euh, nit ñi ñëw nañ fi bu baax a baax euh, liggéey bi am na solo ñu jëmbat garab def yeneen yi nu mel xool aménagement toppatoo ko caméra daanaka àdduna bi yëpp tiim ki nga xam ne moom moo nekk njiitu réew mi ci lancement bi yaakaar naa ne cérémonie bi tey nekk na cérémonie boo xam ne euh, am na lii di doole ni ki tey ji ndax ñëpp ko wër nag pour nga am image yi dina métti ñëpp tey ñëw nañu wër njiitu réew mi kon euh, ñu jéem dem nag fexe njiitu réew mi ndax nag dina def discours am en direct sur la télévision Futur Média pour permettre ñoom askan wi ndongo yi ngi noonu da yuuxu yi kontaan bu baax a baax a baax. ci teew président de la république moom la président Macky Sall yaakaar naa ne euh, Demba dañuy ñëw rek fa seene xam ban message tey la président fa seene jagleel lii di ndongo yi fii nga xam ne moom moo nekk ci école sergent ma Lamine kamara je crois que euh, Demba euh, fii la ñu mën a am direct fi nga xam ne moom lay njiitu réew mi président de la république di jàkkaarloog askan wi def nag relance bu am solo jamono jii nga xam ne ñu ngi fii ci école bii di sergent ma Lamine Camara moom président dugg na ca biir saxal fa garab def fa leneen li nu mel xool li nga xam ne moom lañ fa def tey boo gisee ne la gouverneur mu ngi nee le préfet ñëw na le sous préfet mu ngi ci wet bi maire gox bi mu ngi fi ñëpp ñu ngi fi président nag dugg ci biir gone yi dafa dugg ci biir gone yi saafonte ak ñoom dafa dugg ci biir ñoom nuyoonteeg ñoom ànd ak ñoom dégg nga xale yi ñu ngi naan ko Macky Macky ah, yaakaar naa ne tey président ah, beneen taxawaay la am même le ministre maire de Yoff Abdoulaye Diouf saar mu ngi noonu moom monsieur le ministre daal di ñëw tamit gunge le président de la république ànd ak moom mais président Macky Sall ba léegi mu ngi ca ful ba mu nga ca xale ya xale yi nee nañ am nañ mbégte dalal président loolu moom ñoom wax nañ ko nee nañ mbégte bu mag la ñu am ñoom dalal président Macky Sall kon nag euh, tey euh, dañuy ñëw ànd ak li nga xam ne moom moo nekk président Macky Sall ci li nga xam ne moom lay def ni le président Macky Sall muy noonu di génn <laughs> président sol na ay gants <laughs> ñëw na mu ngay bëgg pour mun a nuyu xale yi vraiment tey moom je crois que président mu ngi noonu taxaw moom Macky Sall ci liggéey bi nga xam ne moom lay def liggéey bu am solo sécurité présidentielle bi mu ngi noonu ànd ak président ñoom euh, waa cadre de vie ñëpp daal di nañuy ñëw nag daal di dugg si fi nga xam ne moom moo nekk fii ci biir. mbir yi ngir daal di jege kon président Macky Sall moom moo ñëw noonu euh, kon nañu dem daal di euh, jege ji fële nga xam ne moom moo nekk ca biir moom njiitu réew mi ànd ak nag euh, waa ñii di cadre de vie ànd ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ànd ak ñun presse présidentielle lañu moom lañu ñu ci direct la ñu nekk kon ci loolu rek ànd ak euh, réew mi la président Macky Sall ngir euh, mën a rek tey caméraman yëpp yëpp yëpp yëpp ñu ngi fi presse bi yëpp yëpp ñu ngi fi ñëpp ñu ngi fi ngir nag fexe moo nekk njiitu réew mi kon faaw mu am organisation bu baax bu ko defee nit ñi mun a am fële ne coin bu baax la fële ne coin fële ne point bu baax la am solo la kon cérémonie bi daa mel ni ñu ngi koy waaj a cérémonie bi ngi noonu di ko waaj a dinañ mën a démarrer li nga xam ne moom moo nekk cérémonie bi euh, Demba pour mën a cérémonie bi dinañ ko waaj a mën a démarrer. soyons propres tous les jours et agissons. ak soyons de Dakar, le ministre de l'urbanisme Abdoulaye du Sow le préfet de Dakar ñoom ñëpp ñu ngi fi ak ministre yi teew nañ fi kon ñu déglu cérémonie protocolaire bi bu ko defee ñu daal di mën a ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu téléspectateur Diop maire de la commune de la Patte d'Oie qui est un élu engagé pour la préservation de l'amélioration du cadre de vie Les collectivités territoriales, comme vous le savez, ont un rôle central à jouer. Elles sont des acteurs de premier plan dans cette action de tous les jours qui connaîtra le succès si nous réussissons à assurer le suivi après nos interventions. Monsieur le maire, je vous invite à prononcer votre allocution. kon Banda Diop moom moo nekk maire bu Patte d'Oie moom nag moo dalal njiitu réew mu président Macky Sall ci bërëb bi nga xam ne ci la ñu nekk fi mu ko yi wax leen message kon monsieur le maire Banda moom mooy jël li nga xam ne moo nekk kàddu yi kon dañuy teelu li nga xam ne moom moo nekk discours su ko defee après ñu daal di nag wéyal kon ànd ki nga xam ne moo nekk le le maire Banda Diop ci discours am. Monsieur le Président, au nom des populations de la commune de la Padoie, je vous souhaite la bienvenue pour l'honneur que vous nous faites de lancer les opérations de mobilisation communautaire dénommées dénommé Bessoub Setal. Ce choix traduit votre action d'insuffler les bonnes pratiques à partir de la base. Vous venez de sanctionner l'intérêt manifesté par le conseil municipal de la commune de Padoua dans sa session budgétaire de 2020, jadis déclarée année de la salubrité. Nous avions fait cette option pour marquer notre adhésion au signal fort exprimé le 2 avril 2019 à l'occasion de votre présentation de votre prestation présent, euh, de votre prestation de serment. Excellence, tout à fait en 2020, vous étiez descendu sur le terrain avec les populations pour améliorer le cadre de vie. Avec l'avènement de la pandémie à Covid-19, les rassemblements publics furent considérés comme des sources de propagation. ce qui a constitué un goulot d'étranglement de l'élan populaire. Monsieur le Président, permettez-moi à travers votre présence de saluer l'entregent et la détermination de Monsieur Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, avec tous les services concernés. Il est en train de donner corps à la politique publique incarnée par la lutte contre les diverses agressions de la voie À ce titre, je vous invite au nom de la commune à expérimenter le modèle intégré UCG, Promoged, hygiène publique. Je peux en attester avec certitude que l'AMS s'engagera aux côtés de la municipalité pour l'évaluation et le monitoring. Avec le programme Réunaoui comme plateforme pilote, il s'agit après avoir nettoyé les artères publiques d'acheminer les déchets, de les trier et plus tard de procéder, de développer une économie circulaire pourvoyeuse d'emplois. Chères populations, élèves, corps pédagogiques, conseillers municipaux, imams, délégués de quartier, conseillers de quartier, Badjanougor, acteurs associatifs, associations de jeunes, groupements féminins, acteurs économiques, l'obligation nous revient de soutenir cet, cet élan citoyen parce qu'il parce qu'il s'agit d'améliorer notre cadre de vie. Il nous faut libérer les emprises, pavoiser les artères, embellir et reverdir afin d'attirer les meilleures opportunités. Oui, c'est possible. Avec le président Macky Sall, l'homme synthèse, l'homme solution. Monsieur le Président, Le choix d'abriter ce lancement à ce lieu précis renseigne sur le suivi à apporter aux espaces dégagés. Par exemple, le parti parking du stade Léopold Sédar Senghor doit obligatoirement retrouver son lustre d'antan et sa vocation initiale, le stationnement réglementé. Cette stratégie permettra à la commune d'intégrer dans ses recettes des ressources considérables qui vont minorer l'impact du projet comme le BRT. Elle permettra aussi de créer une participation financière à la maintenance de l'infrastructure sportive nationale que constitue le stade Léopold Sédar Senghor. Monsieur le Président, j'implore votre accompagnement pour les acteurs impactés qui font partie de la population de la commune. Nous voulons, en collaboration avec le ministère de l'Urbanisme, de l'hygiène publique et de l'artisanat, trouver les voies idoines pour le recasement Excellence, permettez-moi de rappeler une vieille doléance des populations du quartier populaire de Grand-Médine, la régularisation foncière, avec comme corollaire un réseau d'assainissement digne de ce nom. L'occasion faisant la Et ça, c'est un peu, je vais faire de la politique maintenant, c'est un peu notre candidat maire de la ville de Dakar qui me l'a soufflé. L'occasion faisant larron, la commune de la Padoie adhère à votre appel à la paix et à la stabilité en perspective des joutes électorales territoriales du 23 janvier 2022 je vous remercie. kon mu ngi noonu maire euh, Banda Diop maire bu commune bu Patte moom moo dem wax noonu def discours boo xam ne nag njiitu réew mi la ko doon jagleel euh, discours boobu nag euh, mu jagleel ko ko wax ko ko nag moom Banda Diop dégg nga ko moom la ñu noonu. su ne nag am na ay ndongo yoo ñoom ñoo ñoo di ay. nous allons à présent suivre une leçon de vie délivrée par les élèves du lycée Sergent Malamine Camara. une leçon de vie la ñuy suivre xale yi ñoom ñoo koy. Euh, ci kanam. chers camarades chères autorités chers invités aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir le chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall. C'est un honneur C'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à votre haute personnalité. Cher Président, de nos jours, le thème sur le cadre de vie est menacé et négligé. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le cadre de vie Le cadre de vie est un ensemble d'éléments entourant la vie d'une même personne donc qui nous concerne tous, mais pas seulement nous, mais la génération future. Cette négligence amène les populations à avoir des comportements inacceptables comme, comme les déchets plastiques, les ordures, les eaux stagnantes, les la coupe abuse des arbres, les cravats, les inondations et les pollutions de sol de l'air du sol de l'air sonore, et, etc. Cela entraîne des conséquences graves pour notre cadre de vie, dont je peux citer comme les maladies dermiques, maladies respiratoires comme l'asthme, le paludisme causé par l'anophèle femelle qui se multiplient dans les eaux stagnantes. Le réchauffement climatique, la destruction de la couche d'ozone. Monsieur le Président, face à tous ces dégâts auxquels nous ne sommes pas indifférents, plusieurs solutions sont envisageables. Je pourrais en énumérer plusieurs comme planter les arbres, planter des arbres et bien l'entretenir. Débarrasser des eaux usées, ramassage des ordures, installer des, toilettes publiques dans les rues, installer des dépotoirs à ordures, etc. Vous voyez, si chacun de nous prend ses responsabilités en charge, nous pourrons rendre le Sénégal meilleur. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons de vous, Monsieur le Président On a besoin de sentir un président présent qui est là, de nos côtés, qui prend les initiatives comme le Cleaning Day, qui est une excellente initiative. Comme mouvement. C'est vrai, vous êtes un président, mais on a aussi besoin de vous sur le terrain. S'il vous plaît, pensez-y et surtout, vive le Sénégal. Euh, dégg nga message donc yaakaar naa ne jàll na bu baax on merci beaucoup merci. dégg nga ndongo yi lañu ñu wax. ils <laughs> am nañ tuuti trac. njiitu réew dafa yombul. te duñ ko mën kon euh, proviseur bi moom jël noonu kàddu. ngir def allocution euh, proviseur bu lycée sergent ma Lamine kamara moom la ñuy déglu nii mu def li nga xam ne moo nekk discours am dalal njiitu réew mi gannaaw maire bi moom tamit day ñëw ngir dalal lii di njiitu réew mi ci discours am kon ñu teewlu ñu bi moom mooy jël noonu kàddu ngir euh, monsieur le président de la république monsieur le ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique mesdames messieurs les ministres monsieur le gouverneur de la région de Dakar monsieur le préfet mesdames messieurs les députés monsieur le maire de la commune de la Padoie Madame l'inspectrice d'académie, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation des parcelles assainies, chers membres du corps administratif et professoral, chers membres de l'association des parents d'élèves du lycée Sergent Malamine Camara, chers partenaires, chers élèves, honorables invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, je voudrais tout d'abord vous remercier chaleureusement pour le choix porté sur notre établissement, le lycée Sergent Malamine Camara, pour le lancement de la journée nationale de nettoiement Bessoup Setal. C'est un grand honneur pour l'école sénégalaise en général et pour la nôtre qui polarise les communes de Yoff, de Grand Yoff, de la Padoie et des parcelles assainies. Excellences, Monsieur le Président de la République, notre lycée est formé d'une équipe pédagogique engagée, d'une association des parents d'élèves active, de femmes et d'hommes dynamiques, résolument inscrits dans la voie de l'excellence, mais aussi celle de la restauration des valeurs civiques et citoyennes chez les apprenants qui incarnent l'avenir de notre pays. C'est dans ce cadre, Monsieur le Président de la République, que j'ai initié, avec l'appui et l'encadrement de l'inspection d'Académie de Dakar, plusieurs actions phares, notamment l'organisation mensuelle de journées de nettoiement et de propreté en rapport avec les services du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. En effet, nous avons commencé avec les sept mensuels dont la première opération remonte au 29 octobre 2019. Depuis cette date, chaque mois, en partenariat avec les parents d'élèves, l'association sportive et culturelle de l'unité 26 des parcelles Assainies et les bonnes volontés, nous nous arrêtons le temps de nettoyer en profondeur l'établissement, car étant convaincue que l'éducation à la propreté doit se faire aussi à l'école, notre seconde famille. L'institutionnalisation de la levée des couleurs chaque lundi matin, conformément à vos recommandations. C'est pourquoi je mets les apprenants au cœur de ces activités civiques et de leadership, car étant persuadé que l'école est aussi le lieu où l'on peut faire germer les innovations porteuses d'une société de développement durable. À ce propos, sous l'encadrement des professeurs, une activité dénommée Community Services est déroulée par les élèves afin d'identifier les défis immédiats à relever liés à la propreté de l'école, le désherbage, afin d'identifier les défis immédiats à relever liées à la propreté de l'école, telles que le désherbage, le ramassage des ordures à la récréation, le nettoyage des toilettes des élèves, entre autres. L'aménagement d'un jardin potager avec des cultures bio et d'espaces verts ombragés pour rendre le cadre accueillant et agréable à vivre. La création des ministères chargés de la calebasse de solidarité et du leadership dans le gouvernement scolaire pour promouvoir le développement personnel et inculquer le sens de la responsabilité et du partage. Autant d'actions, Excellence, Monsieur le Président de la République, qui participent à l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs sociétales. Celle-ci corrobore parfaitement le thème de cette année scolaire, la restauration de l'éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Quelle stratégie Vous l'avez remarqué, Excellence, Le lycée Saint-Jean Mélamine Camara est bien dans le PSE vert, dont l'un des objectifs est d'améliorer le cadre de vie des populations par des actions de reboisement et d'aménagement de l'espace. Excellence, Monsieur le Président de la République, les personnels de l'établissement, par ma voix, vous félicitent vivement pour vos nombreuses réalisations en cours. Parmi celles-ci, Je citerai la création des espaces numériques ouverts, des universités régionales, entre autres. Pour terminer, Monsieur le Président de la République, connaissant votre ambition d'ouvrir dans notre pays des classes préparatoires, nous aimerions disposer d'un bloc pédagogique et d'un amphithéâtre multifonctionnel pour abriter les classes préparatoires post-bac. Vive l'école sénégalaise. Merci de votre aimable Merci, Madame le mu nekkoon noonu madam le Proviseur bu école Cheikh malami Malamine mu def discours bu am solo li président ñëw fii tey mu dalal ko naka noonu tamit def nañ ci seen i doléance benn bloc boo xam ne euh, ñi nga xam ne ñooy waajal def bac ñoom lañ fay def ngir nag waajal leen yaakaar naa li nu mel ji ci réew mi dégg na ko te xam naa bis bu ñëwee. dina ci indi ay tontoog kon jiitu réew mi la président Macky Sall mu ngi noonu nag euh, taxaw bu baax a baax ci wàllu avant la diffusion d'une euh, vidéo et le discours de son excellence monsieur le président kon dafa am benn vidéo bu ñu war a def lycée le Promoged le service civique national kon dafa am benn vidéo boo xam ne moom lañu fas yéene projeté won ko jiitu réew mi xëy na lu ñu liggéey ci école bi la ci wàllu set setal wàll li nu mel euh, euh, gannaaw loolu nag njiitu réew mi euh, les leçons de vie moom mooy qui ont été faites dans d'autres établissements autres sergent le lycée sergent Malamine Camara c'est une très courte vidéo que je vous invite à suivre kon nañu xool vidéo bi nga xam ne moom la ñu jagleen ci réew mi ngir mu seetaan ko ndongo yi ñoo ko def du ndongo école bi waaye yeneen école tamit ñoom ñoo def boobu la vidéo ngir won ko ki nga xam ne moom moo nekk le président Macky Sall kon xëy na vidéo bi moom la ñu suivre noonu su ñu ko balancé ñu daal leen koy won yéen a ngi en direct ci télévision Futur Média depuis ci suba ba léegi ñu ànd ak njiitu réew mi depuis Mermoz. merci pour le son la jaar ci yoon bi dem fële nga xam ne moo nekk rond point dem bu immeuble Mariama jaar ci VDN bi buntu Cissesse génn noonu dem fi nga xam ne moom moo nekk ci suufu pont Patte d'Oie avec li nu mel ba dellu si fii ci école sergent Malamine Camara jiitu réew mi ànd ak nag ay ministre Abdoulaye Seydou Sow urbanisme ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse le gouverneur de Dakar le préfet de Dakar sous-préfet de Dakar le maire de la Patte d'Oie naka noonu ak proviseur bi kon ñu teewlu vidéo kon benn vidéo la woon merci une leçon monsieur le président de la république est en train de signer le livre d'or du lycée sergent Malamine Camara mhm. et euh, après la signature madame le proviseur voudra bien nous lire les aimables mots du chef de l'État kon njiitu réew mi président Macky Sall nee na mu ngi signé livre d'or bu école bi su paree ci loolu tamit am na leneen li nu mel ci njiitu réew moom moo fas yéene ñëw Euh, janook ndongo yi ndax fii la choisir ngir relancer activité bi ñu tuddee ci béy bésub euh, seetal wax ndongo yi kon niñ ko waxee rek gone ñu teel leen ko inculquer teel leen wax nag message bi yaakaar naa ne ce sera message fort message bu am euh, contenu message bu mag moom président de la république ndax ndongo yi tàllal nañ leen sunu micro am nañu mbégte lool dalal jiitu réew mi parce que du lu yomb nga jàng ci école ba génn ci njiitu réew daal di ñëw seet si la saafoonteeg yéen ànd ak yéen dox ak yéen ñëw ba seen biir école yaakaar naa ba gone di màgg ay futur président ñu ngi fi ay futur ministre ñu ngi fi dinañ le président Macky Sall ci atum tel le 4 décembre 2021 ñëwoon na sunu école ñëw fa saxal fa garab ñëw fa ñaax ñu wax ñu ñoom tamit loolu la ñuy màggaale ngir nag ñuy mën ñaax seen i morom suñu delloo ci seen kër ñoom tamit dinañ am loo xam ne moom la ñuy defaree kon nag madame le proviseur moom am na livre bu mu joxoon njiitu réew mi njiitu réew mi ko signé kon day liir euh, li nga xam ne la ko njiitu réew mi bind di bisub set setal au cleaning day ici au lycée Sergent Malamane Camara m'offre l'occasion de constater les efforts la proviseur Koumbagnan et toute son équipe et les vaillants élèves du lycée. Je vous engage à poursuivre vos efforts en matière de propreté et d'hygiène publique. Je serai à vos côtés pour vos projets. Macky président de la République. kon le président de la République loolu la bind ci kaye bi am mbégte teew fi nga xam ne moom moo nekk ci école bi. lépp loo xam ne wax nañ ko nee na nag jël na engagement ngir jàppale leen nekk ci seen wet daal leen jàppale ñooñu école yooyu nag. la République a prononcé kon njiitu réew mi la président Macky Sall moom mooy ñëw noonu nag ngir wax li nga xam ne moom moo nekk discours am euh, janoog gone yi xale yooyu nag lay janool kon président Macky Sall mu ngi noonu dégg nga xale yi ñu ngi koy taacu. ndongo yi ñu ngi koy taaj tekki na lii di maskam moom président Macky Sall kon xëy na dina am discours bu am solo moom la fas yéenee joxe moom njiitu réew mi le président Macky Sall. merci beaucoup merci beaucoup monsieur le gouverneur de la région de Dakar du logement et de l'hygiène publique, M. Abdoulaye Seydou Sow, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Madame le ministre de la Jeunesse, Madame Nene Fatoumata Tal, Monsieur le gouverneur de Dakar, Monsieur le préfet du département de Dakar, Monsieur le sous-préfet, des parcelles, Monsieur le maire de la commune de la Padoie, M. Bande Diop, Madame la proviseure du lycée Sergent Malamine Camara, chers élèves du lycée Sergent Malamine Camara, ici présente en vos rangs grade et qualité. Je voudrais avant toute chose rendre hommage au parrain de cet établissement, le sergent Malamine Camara, peu connu par les Sénégalais. Pourtant, il fut un héros de l'armée coloniale française en Afrique Sergent Malamine Camara fut ce qu'on appelait à l'époque un lapto. C'était un sergent doté de courage, d'un courage exceptionnel, qui a fait que lorsque Savorgnan de Brazza a eu une mission pour conquérir et garder le Congo dans le giron de l'Empire colonial français, il lui fallait des hommes courageux et valeureux. On lui avait parlé du courage du sergent Malamine Camara. C'est ainsi que Savorgnan de Brazza est passé par Dakar pour voyager avec le sergent Camara qui resta seul au Congo et qui signa avec la France à l'époque et avec le roi Mokoko Ier la garde de la colonie du Congo sous son autorité, lui le sergent Malamine Kamara. Et il mit en déroute Stanley, qui fut envoyé par le roi de Belge. Et donc, d'ailleurs, le président de la République du Congo, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a rendu hommage au sergent Malamine Kamara. Et aujourd'hui, à Brazzaville, aux côtés de Stanley, vous trouverez la statue et les hommages rendus à ce vaillant soldat sénégalais qui, porte, qui vous donne le nom de votre établissement. Je voudrais me réjouir du retour de cette journée Bessoub Setal. Je l'avais lancé Entre-temps, nous avons eu la de Covid-19 qui nous a de poursuivre. Il donc heureux que cette journée mensuelle puisse reprendre partout dans le territoire national, dans les établissements scolaires et dans les services de l'administration, des collectivités territoriales, mais également dans les communes et autres collectivités territoriale. Cette journée doit être une journée de tous et de toutes. La propreté et l'hygiène, c'est l'affaire de tous. L'État va mobiliser des ressources conséquentes pour accompagner les collectivités. Mais le travail, fondamentalement, sera le travail des populations, des citoyens, des élèves, des étudiants, mais surtout des élus. Je voudrais donc remercier Monsieur le maire Bande Diop et toute son équipe municipale, remercier le responsable politique de la Padoie ici présent et les citoyens qui se sont mobilisés en cette journée pour d'abord désenclaver et surtout, j'allais dire, désencombrer les environs du stade Léopold Sédar Senghor. il nous faut, Monsieur le ministre Abdoulaye Sow, continuer ce travail de désencombrement. Il n'est pas acceptable que Dakar continue à présenter un tel visage. Il faut absolument tout enlever, tout ce qui constitue un obstacle sur la voie publique Je vous en donne tous les pouvoirs et vous avez mon soutien entier et total. Utilisez les moyens de l'UCG, utilisez les moyens des forces publiques, utilisez tous les moyens pour dégager la voie publique, la rendre respiratoire. Et j'invite nos compatriotes à planter des arbres, à les entretenir, à les arroser pour que notre cadre de vie soit un cadre viable, un cadre où il fait bon Et c'est à l'image de ce magnifique lycée Sergent Malamine, qui est un lycée boisé, on voit ces arbres. C'est rare dans les établissements. Donc bravo à Madame le Proviseur, bravo aux enseignants et aux élèves. qui prennent soin de leur établissement. Et je lance cet appel à l'ensemble des élèves, à l'ensemble des proviseurs et à l'ensemble surtout des enseignants pour que les établissements scolaires et universitaires soient des modèles de propreté, des modèles de cadre de vie et bien sûr Vous avez été pressé. Je ne peux finir mon propos sans rendre un hommage bien particulier et d'abord au ministre Abdoulaye Sow, mais également au directeur général de l'UCG, M. Mastiam, Mastiam qui a révolutionné la perception de la gestion des ordures. Aujourd'hui, on sait que l'ICG est un outil essentiel, fondamental pour le cadre de vie au Sénégal. Merci Mastiam et merci également, merci également au promogène, à son directeur général qui vient de débuter et qui également a engagé des travaux importants. Merci à la jeunesse, au service civique national. à Madame le ministre de la Jeunesse également pour le remarquable travail du service civique national et pour l'esprit de volontariat en cette veille de la journée mondiale du volontaire. Merci en tout cas. J'ai été très fier de prendre part à cette journée, mais nous allons la faire tous les mois. Il faut que vous assuriez la propriété de votre établissement, chers jeunes, est autour de l'établissement. Il ne faudra pas accepter que les gens viennent envahir les environs de votre établissement. mbokku Sénégal am naa mbégte lool ñëwaat tey ci bésub setal muy bés boo xam ni dañu ko nattoon ngir Sénégal ñépp jóg dal di seetal seen gox bésub seetal nag du rek bésub gouvernement bi déedéet du rek bésub ministère de l'hygiène publique waaye bésub ñëpp la muy kër yi muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi muy association yi bajjenu gox muy maire yi ak collectivité territoriale citoyen tout simplement ñëpp ñoo ci war a jàpp setal suñu dëkk setal suñu gox ndax si ceet ci la wér-gu-yaram mën a am fii nag maa ngi ñëw tey ci lycée bu ñu tuddee sergent Malamine Camara mu doon jàmbaar joo xam ni ci jamono colonisation la woon mu doon jàmbaar bu ñépp ràññe woon ay mbiram ñu jële ko fi yóbbu ko ba Congo moom sergent Malamine tubaab yi ba ñu demee ba war a dellu ñu ne kat faaw ñu dënk ko kongo ñu daal def accord accord boo xam ne dañu ne jamono jooju colonie de Congo mu ngi ci loxo sergent Malamine mu defendre colonie bi contre Stanley ba nga xam ni ñi ko yónni woon ñëwaat nañu ñaari at ci ginnaaw moom ak buur ba fa newoon di buur Makoko premier dama ne kooku taarix la boo xam ne tam suñu waar réew war nañ ko xam kon nag yéen ndaw lycée bi war ngeen xam ne am ngeen royukaay muy parent wu lycée bi di sergent Malamine war na tax ngeen jàng góorgóorlu setal seen école te nag sax seen école bi dafa set dafa yàññ dafa taaru ndax Sénégal bariwul école yu am ay garab ci nag gis nañu garab yi ni mu mel meññ nañu te proviseur wax na programme yoo xam ni am ngeen ko dinañ leen ci jàppale danaa leen bàyyil tey ci loxoom juróomi million pour ngeen def ko ci seen kees pour mu nekk loo xam ni encouragement la parce que si yéen laa ko gisee seen pas-pas seen taxawaay grâce ak seeni jàngalekat léegi nag xam ngeen ni feebaru mbas mi moo waraloon ñu taxawal basub setal ñu ngi ko tuddoon cleaning day waaye suñu kàllaama mooy bësub setal may gërëm ministre Abdoulaye du Sow bi nga xam ne moo génne loolu taxaw si taxawaay bu rafet ak ñi mu àndal ak ministre yi fi nekk muy nuyu suñu ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr bi wanewaat sama mbégte ci liggéey bi ma ko dënkoon mu mot ko sëkk en tant que ministre de la santé dans une crise de pandémie aussi grave que celle de la covid di nuyu ministre de la jeunesse moom itam yu ndaw ñi nee na Fatoumata Tall xam ngeen ni programme xëyub ndaw ñi gis naa xale yi sànq am naa ci mbégte lool am mbégte nag ci waa UCG ci seen liggéey bu rafet seen liggéey bu rafet fépp ci biir Sénégal loolu tam ah bu lëg lekkee aloom na ko gërëmee coy kii ñu dénk monsieur Jean wane na ci xam-xam wane na ci xarala kooku mooy Mass nekkoon na ci yeneeni secteur mais dama koy félicité waat parce que nii ñuy doxalee noonu la war a demee mbalit mi ñun ñëpp ñoo ko war a jël dindi ko buub ko yóbbu ko ñu daal di ko daal di seetal suñuy gox loolu kenn warul ci xaar UCG wala leneen kon li proviseur wax dama koy dëggal encouragé ko si weer bu nee na école bi def opération waaye da ngeen am seeni poubelle ci biir école bi kenn bana sànni këyit kenn bana sànni mbalit loolu ci la wér yaram di mën a amee ci la taar di mën a amee kon nag su may jeexale mooy maa ngi gërëmaat waa réew mi yëpp di ñaan kilifa diine yi ñu dugal seen loxo ak kilifa aada yi ci setub dëkk bi ak setub réew mi senegal réew mu am am solo la réew mu ñu naw la ci domaine yu bare bare waaye nag ku gis mbalit mi ku gis salte yi rekk da nga am nañu ñu xoolee loolu la bëgg ñu dindi ci makkaanu Sénégal dëkk boo dem mu nekk dëkk bu set wecc ñu woo bàjjenu gox yi woo élu yi woo jeunesse bi surtout ASC yi parce que ASC yi mbirum koñ la kon maa ngi woo ASC yi ak waa ONCAV ministre de la jeunesse ànd ko ak ministre de l'hygiène publique ànd ko ak ministre de la jeunesse pour que quartier yi gox yi ak gox goxaan yi ñu setal leen dañu jëmbat ay garab jëmbat garab ci buntu kër jëmbat garab ci biir réew mi maa ngi leen di sant di leen gërëm ba beneen. mu nekkoon noonu la président de la république euh, Macky Sall discours bi nga xam ne jagleel na ko ci li nga xam ne moo ne cleaning day bi maanaam bés bi nga xam ne bésu setal lañu ko tuddee fépp ci réew mi moom la ñu relancé waat nekk bés boo xam ne bés bu mag la bés bu am solo la kon njiitu réew mi discours bi ñu dem xaar pour mu jox ko ndaw ñi jox na leen ko. kon nag euh, lépp loo xam ne jël na ko fii tamit ci engagement am na ci mbégte am na ci contentement am na ci lépp lépp kon nag euh, loolu kon njiitu réew mi président de la république Macky Sall moom moo nekk noonu di daal di doxal nag moom président de la république mu ngi noonu di ñëw ngir waaja nag euh, delluwaat fi nga xam ne moom moo nekk ci yeneen i kon président tey am na doxalin boo xam ne moom def moom président Macky Sall kon di ko jaajëfal bu baax a baax jaajëfal ñëpp ñu ñu àndaloon ah, kon lim ci wax rek nee na déguerpissement yi faaw ñu continuer ko maanaam daj yi nga xam ne ñu ngi koy def ndax nag euh, Sénégal mënut a yor xar kanam bi nu mel ndax xar kanam bi xar kanam bu ñaaw la. xar kanam la boo xam ne Dakar en tant que capitale warta mun a mel ni kon nag moom jiitu réew mi président de la république loolu la daal di yëgle loolu la daal di xamle jamono ji nag moom euh, président Macky Sall te nee na nag jox na tous les pouvoirs Abdoulaye Seydou Sow ngir nag mu daal di ñëw nag daj bu baax a baax li nga xam ne moo nekk maanaam bépp place boo xam ne jamono ji dañ koy indi euh, ci jamono ji nag ñuy daje kon président de la république moom mooy waaj a dem noonu moom président Macky Sall ci li nga xam ne moom moo nekk euh, liggéey bi moom président euh, suñu gisoon Abdoulaye Seydou Sow nag jege ko ni ko président jox moom dina ci mën baax a baax jéem a jege ji ne rek gis le ministre moom mu ngi di dem njiitu réew mu président Macky Sall moom mooy dem noonu moom mooy dem noonu président Macky Sall ci nag delluwaat ci li nga xam ne moom moo nekk ci liggéeyam attention mbaar ma daanu na foofu xëy na ñenn ñi ci nekkoon ñoom ñoo tax nag ba mbaar mi daal di daanu noonu ci côté président de la république maanaam pupitre bi nga xam ne moom la ñu defoon président mu ngi woy ba léegi taxaw di waxtaan di saafonte tam di wax ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñenn ñi ñuy ñëw Euh, ministre Ablaye Seydou Sow monsieur le ministre mu ngi noonu di dem buggoon nañ ci kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi moom la digtal moom lan la ci xam lan la ci yëg kon dinañ ko jege léegi moom ministre Ablaye Seydou Sow mu daal di ñuy jege tuuti euh, tey ñu ngi noonu euh, président de la république di def visitam le président maki Sall mu ngi nii di dem ak casque bu weex di continuer waat euh, ci image yi mu ngi noonu président mu ngi génn ci école sergent ma Lamine kamara askan wi tamit bu ko topp mais garde euh, rapproché yi du lu may kenn ñu jege euh, président mu ngi dugg noonu ci otoom dugg noonu ci otoom ngir daal di delluwaat fi nga xam ne fa la jëwoon ci lycée sergent Lamine Camara, madame le proviseur Pape Fara Ñing merci beaucoup tey discours bu am solo nga fi tenir président ñëw euh, ngeen dalal ko ci bés bi nga xam ne mooy bés setal yan kàddu nga ciy sànni euh, asalaamaaleykum euh, la TFM merci beaucoup Pape voilà tey dañu recevoir monsieur le président de la République mu ñëw lancé fi officiellement la journée du cleaning day bi ñu tuddee bésub setal suñu kàllaama mu doon la am solo ndax euh, ni ma ko waxee rek ñun président daf ñu ci fekk depuis 2019 activité bi ñun ñoo koy mënee chaque mois dañuy taxaw euh, élèves yi parents d'élèves yi les bon volontés les partenaires ñoo jàppale ñu ñu taxaw nettoyer parce que lu ñu gëm la xam ne nag propreté moom dafa war a am ci école ndax école cadre la bu nga xamante ne nii esprit sain loolu moo waral ñun euh, ñu nekkoon ci di sant nag di gërëm bu baax son excellence bu président de la république. merci beaucoup madame am nañ ci mbégte kontante kon euh, ministre sama Lamine Camara tey ñoom ñoo dalaloon njiitu réew mi la président de la république Macky Sall ci bésub euh, setal président nag dugg na ci oto waaye bu léegi départ Euh, nit ñi ñu ngi noonu nag ci protocole bi euh, fii nag moom tey dina métti lool ndax euh, mbooloo mi bëri na lool presse nationale beeg internationale bi ñëpp tey ñoom ñoo ñëw ñëpp bugg a génnaloo kon président mu ngi noonu dem moom président jéem a xool la santé